dañuy ne albaraka président Macky Sall président Macky Sall yow mi nga xamante ne yow yaa am vision boo xamante ne dafa éclairé ba nga mun ñoo tànnal la meilleur profil pour la continuité du plan Sénégal émergent amuñu sa fay de xam nañ ne bëgg Sénégal moo tax nga jël boobu profil ne boo soorul woon Sénégal amaana leneen am waaye profil bi yàlla nga daje ak sa bëgg-bëgg mu daje ak bu suñu borom ci barke yonante alayhi salaatu wassalaam loolu la ñuy ñaan candidat Amadou Ba ñun de ñu ngi ñaan yaakaar bi nga xamante ne moom la président Macky Sall am ci moom yàlla na ko mëtee te ragal nañ ne mate na ko ndax fu nekk coytu nañ ko yàlla na ci yàlla def li ñu ci bëgg ba a def leneen ci barab ko yonent alayhi salaatu wassalaam yéen xam ngeen ne lii nga xamante ne dañ ko def cérémonie de remise de parrainage mënoon nañ ko def ca biir kër ga waaye parti dafa war a am animation moom moo waral ñu jël bi euh, stratégie pour animation parti te bu yàlla deuxième phase bi it ragal naa ne bu boobaa moom ba ba bâche dañ lay bâche nga <laughs> monsieur le régional kaddu yi nga xamante ne moom dañ lay yóbbante foog na monsieur le SAF Cheikh Bakar Faye wax na la ko léegi engagement ak détermination du loolu moo fi manqué li ñu manqué mooy lu ñu wax nit ñi ñu fexe ba respecté ko ñoom ñu mën a gis seen bopp ci lépp président Macky Sall Touba lu ko fi war def na ko autoroute Ila Touba doy na hôpital Cheikhul Khadim doy na assainissement bi muy def fii ci Touba wax dëgg yàlla mënuñu ko see waaye nañu gën a yokkal très bu ñu yokkalee ñu ngi ñaan ci barke yokk boobu mu yokk moom li mu bëgg moom mu am ci barke Cheikhul Khadim président Amadou Ba ñu koy wax na tàllal ñépp loxo bu mu beddi kenn ku mer na jëli képp koo xamante ne musul dugg ci politique nañ ko jëli na gën a mu ngi ci social bi waaye na ko gën a def bu ko kenn téye digganteem ak doomu aadama yi doomu aadama ku ko yëg moom la bëgg doomu aadama ku ko faale moom la bëgg kon bedd bi beddoon euh, ni ñuy beddee nit ñi nañ ko bàyyi te gën a ragal suñu diggante bi suñu borom nañu bàyyi di toroxal doomu aadama yi nit boppam da am nit sagam da am kon nañu gën a suturaal nit ñi gën leen a sagal yàlla def moom li nga xamante ne ñu bàyyi ko moom mu def suñu des barke Cheikhul Khadim di leen di jox rendez-vous ah ñu ngi koy ñaan fii ak le 2 novembre ñu ngi xool délégué waaye entre euh, le 2 2 décembre incha allah ñu ngi bëgg le 2 décembre wala le 3 nga ñëw ñu def suñu clôture pour parrainage yi incha allah rabbi ngeen jëf.